boo demee ci dëkk yu bëri li nga xamante ni moom la ñuy utiliser ngir fóot muy ay machine ak yeneen ak yeneen waaye teewul ci biir Dakar ba léegi am na ñoo xamante ne ñu ngi koy defee ni ko maam doon defee muy fóotee ko loxo ki nga xamante ni nag ñu fekk ko ci biir këram dimanche bi mu ñuy wax ni nga xamante ni noonu lay fóotee. Euh, ban yow di def fóot 5 ndax fët du métti loxo yi crampe di genre fële. ci wàllu machine yooyu nag moom mu war ne séeraay bi ak li nga xamante ni moom mooy yenn matériel li ñuy utiliser lu ko mel ne banco moom mënu ko moo waral mu daal di jël loxoom. machine bi da ngay fay yooyu kii kii bu nekk dañ koy calculer xamante ne ñoom ñoo si nekk di liggéey ñu lay fay ndax ndax ñooñu dañ koo mën wala gis koo tàmm rek. yow bu bu bu ñu doon fóotu loxo nag ñu bari jàpp ne moom moo gën a set ndax fépp fi nga xamante ne gis nga fa tâche di ko mën defal sa bopp moo waral ñenn ci sénégalais ba léegi ñu ngi wëy di fóote seen loxo te mu am jafe-jafe yu bëri ndax toogaay bu yàgg bi loxo yu metti yi waaye teewul ba léegi ñenn ñi ñu ngi tàmm li nga xamante ni moom fi maam bàyyi woon.